ngaayoo bu métti moo am diggante agent municipaux yi ak ministre bii di Bala foofa Fofana bokk na ci lu leen métti mooy anam bi nga xamante ni noonu la ministre bi nekk di traité seen dossier ndax jàpp nañ ne li ni mel dafa jàdduwul benn yoon. dafa dafa laaj maire yi ne leen yéen yéen ay officier d'état civil ngeen ne gouverneur ak préfet yi fexe leen ba ñu am service minimum ndax askan bi mën a jot ci li ñu soxla ci jëm ci wàllu këyit. ñoom ñi leen nag fas yéene nañ banque seeni yooxoo fii ak une semaine bokk na ci lu ñuy ñaxtu mooy ñu yokkaat seeni salaire ak xoolaat lii di statut agent municipaux yi. Euh, dafa am maire yoo xam ne yi bu ñuy recruter teguñu ko ci xam-xam teguñu ko ci maanaam maanaam lu lu lu lu lu jaar yoon dañuy recruter rek seen seen clientèle politique mbaa ñu recruter lu leen neex boobaa ñu def leen ay salaire yu leen neex. ministre bi moom daldi na soññ maire yi ak préfet yeeg gouverneur yi ngir mën a jàppale askan wi loole nag bokk ci lu métti bu baax a baax yi les syndicalistes tax nañu jàpp ni duñ bàyyi benn yoon mu sedd. Euh, comme je l'ai dit ils ont atteint le taquet dem nañu ba sës ci mur bi xamatuñu fu ñu jëm ndax vraiment boo dem day def grève 100 mètres 100 mètres pendant ay ay weer te kenn woowu la kenn déggulul te amul benn solution loolu mooy daanaka jaaxle